depuis 4 heures ñoom rek ay wax. ils ont la loolu ah, voilà ñun tam mais c'est spécial pour ñoom ah on a. on avait spécial éducation on avait promis spécial spécial éducation. mais fii d'abord la allez Pape Djibril la parole à Pape Djibril. pendant toute l'année vous parlez politique ay éducation. <laughs> toi tu parles politique. déjà di la di la féliciter déjà pour le choix du thème. merci di wax aussi ne depuis semaine yi yëpp. le groupe Futur Média fait un important travail ci wàllu éducation ci plateforme yëpp góor gi daje nañ Euh, fan yële ci info du matin mu jóge tëngeej ñëw bi ma ñëwaatee léegi gis ko mu ñëwaat jóge tëngéej sama yaram sax dafa daw parce que à son ak tëngeej ni mu soree ak la euh, caajaay ko gën a sori. waaw moo ko gën a sori waaw. ak ak le problème du transport. dinaa ñëw ci caajaay. parce que mais nag kii du xëyee caajaay ah. Euh, ah comme caay waxee man tam laay xëyee. bàyyi ci bàyyi rek ma bàyyi caaja. <laughs> non ni nga défendre bi tënkee tey c'est pas anodin am na lu tax. mais dinañ donc di ko di ko di ko féliciter di leen rendre hommage ñoom ñi nga xamante ni tey dañu porter combat boo xamante ni c'est une question d'intérêt général. c'est-à-dire que affaire enseignement du ay affaire groupe de pression du ay affaire euh, opposition wala pouvoir. déedéet problème mu réew mi yëpp la loolu moo tax sëñ Babacar Sy Mansour wax ci loolu moo tax sëñ Mountakha Mbacké di tabax université boo xam 37 milliards lañ ciy def c'est-à-dire que c'est une question cruciale wax na nga léegi enseignement man j'ai eu la chance de faire sur les pas de Seydi Hadji Malick mais bi ma gisee li ko xam-xam jaraloon ak ak ak vulgariser xam-xam ak sàkku xam-xam jaral ko ko après dama ne ñun suñu yitte sax dafa rot par rapport ak ñoom fi ñu yóbbu woon mbir mi bu ma gisee Xaali Omar Fall li ko xam-xam jaraloon ba mu taxawal l'école de Pire c'était une université dama xam ne ñu suñu yitte dafa rot bu ma fàttali ko man ñi ma jàngal góor gi ma gi nga xam moo nekkoon euh, suñu directeur école Michel Ndiaye Thiadiaye école Notre-Dame de la Paix bu Thiadiaye Michel Ndiaye niveau d'implication bi directeur boobu amoon nga xam ñun fëgg nañ ko minuit këram et il toujours disponible ma gisoon ñoo xamante ni amuñu woon xaalis pour fay te mënoo ñëw ci classe bi xamee xam nga léegi wax nañ ne dañuy defal dérogation xale yi ba décembre mais le problème c'est pas la dérogation le problème mooy pois psychologique boobu xale bi di am ci biir moromam bu yëgee ne fayut mm-hmm. le problème mooy fourniture yooyu nga xam war na ko am su ko amut <coughs> ban poids lay nekk ci ñoom mm-hmm. man directeur bi yoroon école boobu nit da daan manqué kay ñëw mu jël kay jox la mm-hmm. ma gis enseignant am contrainte mënul ñëw ma gis ko moom mu ñëw jàngale ma gis ni muy pallier gap bi te te noonu laa fàttalikoo ki ma yoroon yi ba ki ma yoroon cm nga xam duñu woon rek ay maîtres c'était des pères pour nous et des repères en même temps un niveau d'implication extraordinaire boobu daawuñu dégg coowu syndicat léegi man damaa dama damay poser wu question c'est-à-dire que à ce rythme-là est-ce que ñun suñu réew dañ ko bëgg a tabax ci un conflit permanent et perpétuel ou pas c'est pas possible c'est-à-dire que à ce rythme-là on ne va pas régler la question à ce rythme de de am njaay indi job dématérialisation lenteur nangam sangam moi j'ai eu la chance de couvrir bi ñuy wax affaire Jantec Zoumaro boobu maa ngi fa woon ak Mohamed Boun Abdallah Dionne ci ay question ci ay monitoring ak yooyu foofu lañ ko doon déggee mais débat bi y avait toujours un goût d'inachevé y avait tout en queue de poisson mais li gën a métti du woon lool li gën a métti moo doon foofu laa njëkk a la crise de représentativité bi am au niveau des syndicats waa ji day nangu léegi sur la table du premier ministre dem basam ne ko déedéet ñun d'accord uñ d'accord uñ te loolu pour man dafa nekk question bu cruciale boo xamante ni il faut que ñu réglé parce que c'est une question de démocratie mais pour revenir sur le syndicalisme wax nañ léegi c'est c'est c'est dame c'est pour man c'est c'est de bonne foi qu'il des gens yoo xamante ni bu problème taxawee dañuy jël seen seen seen ndigg takk ko pour régler problème bi mais pour man ça ne doit pas durer ad vitam aeternam c'est pas possible c'est-à-dire que si l'État du Sénégal aujourd'hui à travers ses services déconcentrés à travers ses service au niveau central su fekkee ne état boobu mënul xam ne Djibril Fall mi jàngee Kédougou am na problème lenteur xaw ma xaw ma parce que même yooyu dañ ko war a bannir en réalité du jargon bu yëgee ne moom ci wàllu ci processus am na ci loo xam ne mais bu fekkee état boobu mënul am information boobu ba régler problème boobu à quoi sert l'état finalement avec tous ces moyens à quoi sert l'état te tant que loolu jógewu fi on aura des syndicats dans tous les domaines d'activité de ce pays la et jamais ñu régler ko parce que l'appétit vient en mangeant da nga koy régler tey am na ci ñoo xam ne li oustaz Alioune Sall di wax nee na am na ñoo xam bëgguñu sida jóge fi parce que ñoom sida moo leen di dundal hmm. am na ci ñoo xamante ni xëy na problème enseignement bëgguñu mu jóge fi parce que ci problème boobu ci la ñuy dund On a évoqué tout de suite la question de la Casamance. On a parlé des monsieur Casamance dans ce pays. On a parlé du Covid. Il a des gens yoo xamante ni dañu sant yàlla ndax Covid bi ñaanuñu am na sax anecdote bu ñu ma nettali ñu ne dafa am ku ñëw taxaw ci arrêt bi ne Covid bi jeex na nee na jaaykatu masque bi ne ko waxoo jàmm de. <laughs> donc dañu am ñoo xamante ni situation bu taxaw le malheur des uns fait le bonheur des autres. moi j'en appelle à li pour man li sëñ Babacar Sy Mansour wax il à une élévation. mooy nan la ñuy def. ba régler définitivement ba enseignant parce que ñun enseignant yi ñu doon jàngal ñoo doon susciter ay vocation ci ñun maa koy nettali keroog man ki nga xamante ni moom ma moo ma yoroon CM2 bi mu xamee ne dama war a def concours prytanée militaire gis naa ne moo ko gënoon a bëgg samay wéyjur ci biir classe bi dafa ma particularisé woon ci formation bi mënuma ko woon a def Caajaay laa nekkoon problème mu accès à l'information moo tax ñu def concours bi te yëguma ko woon et je je pense persiste que ce problème là demeure une réalité dans le monde rural ba tey tey jii ñi war a def concours ñi war a def ñu ci bari du ñu yëg lu bari parce que tout simplement ils sont loin de la ville loolu moo tax président ci affaire la question de l'emploi mu bëggoon ñu ne nañu jegeel information bi ci mbir yi li ma bëgg a wax rek pour pour jeexal foofu mooy que ne faut que élévation bi sëñ Babacar Sy Mansour wax il faut que ñu bàyyi di toroxal enseignants yi dans ce pays la voilà di leen clochardiser. xale bi di gis enseignant saa bu xëyee visage renfrogné contestation indignation mais lool ngeen foog ne du déteindre ci résultat yi dafay déteindre ci résultat yi nga xamante ni moom la ñuy jàng loolu moo tax léegi booy egg cycle cycle ci digg cycle euh, cycle moyen soo fay egg wala cycle élémentaire. mais l'enfant parce que primaire loolu lay jëriñ mooy est-ce que bu xale bi di egg ci digg bi il sait lire écrire et compter enseignement supérieur leneen la enseignement supérieur li ñu ko soxlaa mooy mu fournir des ressources humaines de qualité dans le domaine économique dans l'innovation dans l'entrepreneuriat dans dans les questions yi nga xamante ni mooy nan la ñuy accompagner suñu politique publique yi il faut que donc ñu joxaat vocation enseignant bi mu def ko aussi par vocation par passion mais ñu bàyyi di ko yërëm am na ku may message léegi benn soxna xam naa ko xam naa ne borom këram faatu na mais nee na ma borom këram dafa daw lu mat huit ans ci ay affaire avancement yooyu te jàngale rek la bëggoon ba mujj faatu. am na ci ñoo xam ne kii la lay wax intégration. am na ci ñoo xamante ni catastrophe li c'est des drames. am na ni dañ ma inter am na ci ñu ma interpellé woon ñu ne ma dañuy jóge signature rek ñu jóge dugub ba Dakar pour une question de signature donc pour man. enseignement bi nan parce que tey ku am dara jël nga sa doom yóbbu ko ci école privée y compris ceux qui nous fii bi ñu fi tëj Yavuz Selim on s'est rendu compte bi ñuy tëj Yavuz Selim que le fils même du ministre de l'éducation nationale était à Yavuz Selim oui c'est sûr xala te tey jii boo defee inventaire yëpp boo defee inventaire yëpp di nga gis ne mais yow bu dee hôpital public bi nga war a conduire wóoluwoo ko école publique bi nga war a conduire wóoluwoo ko transport public bi nga war a defar doo ko jël mais du régler ñun on veut réinventer la roue nous sommes pas des magiciens le développement dafa am dafa am yoon c'est une recette qui est connue aujourd'hui te jëlaguñ yoon boobu lool moo tax le discours du xalif vient à son heure nit ñi sonn nañ metti na li mu wax léegi foofu laa jeexale der sur les inscriptions mais ça renseigne sur autre chose c'est un indicateur de sous-développement bu metti bu dee nit ki amul 15000 wala 23000 yu mu fay inscription c'est un indicateur donc nañu bàyyi di nax autorités yi wala ñuy naxante disons-nous la vérité on a encore du chemin et qu'on doit prendre le chemin du véritable développement. voilà allez Félix non Félix tey chroniqueur la. mais mais Ablaye Ablaye Félix. da nga ne xam nga am